biir réew bitim réew bayuñu kenn macha allah di nuyu kilifa diini yi kilifa aada yi di ñaanal ñëpp jàmm di leen wax marhaban bikum ahlan wa sahlan ñu ngi kontaan ci seen teewaay fii nii incha allahu taala ñaan yàlla yàlla defal ñu tawfiq ngir ñu mën a dugg ci waxtaan bi mu ñu defee ko ni mu waree incha allah macha allah am na solo noonu la nuyoo moom Serigne Amadou Ba nekk fi nga xamante ni mooy jam ñaaju tey nag ñu seesi ko dañu waxtaan moom ci lépp loo xamante ni bëgg ngeen koo xam ci lépp loo xamante ni maanaam ay liggéey yoo ne def nañ ko sa yaram la bu ngeen ko seesi ci kàttanu yàlla lépp loo xam ne nii maanaam ay liggéey dina ci dina ci indi ay leer ay ci sëñ bi dañuy ñëw ci li nga xamante mooy wàllum seet tey boo doon wax tey seet waaw alhamdulilah ñu ngi sant yàlla bu baax euh, di wax ne seet lu am solo la parce soo demee ci docteur bi sax balaa mu lay defal dara il faut mu consulter consulter la ba ba xam la ban feebar moo nekk ci yow euh, léegi ñun tamit ku ñëw ci ñun il faut ñu seetal la waaye dañu lay laaj sa tur ak sa tur yaay ak say at ñu xool ñu dugg sa ci sa biddéew ñoo xam xam lan moo nekk ci yow lan mooy sa gàllankoor euh, bu dee rab moo nekk ci yow ñu wax la bu dee liggéey ñu wax la bu dee cat ñu wax la cat nag am na ñaar am na cat jigéen am na bu góor cat bu góor am na cat bu jigéen am na loolu yëpp su ci nekkee lan moo war lan bu dee feebar yooyu am na ci yow lan moo lay faj waaw lan moo lay faj lan moo war a nekk sa sarax loolu yëpp nag lu koy génnee mooy seet loolu moo tax nit balaa nga koy ñaanal seetal ko ba pare te seet dafa am solo parce que mooy génne lu bari bari bari loo xam ne mu ngi ci nit ki pour nga xam li weesu ak fi mu toll ak lii ñëw di ñëw ci kanam loolu moo tax nag macha allah ku ñu ku ñu woo pour ñu ñaanal ko balaa ñu koy ñaanal dañ koy seetal moo xam nag aaju bi lan la aaju bu mu mën a doon rek balaa nga ciy dugg danga war a seet ba xam aaju bi lan la même soo bëggoon jënd ta tey sax xir maanaam kër wala oto wala bëgg dugg ci soxna walla yaa xam leen ak leneen war na ci yow nga def listixaara bi nga xam lii baax na wala baaxul war naa ci dugg wala war ma ci dugg wala bu dee dafa am lu muy laaj nga xam lu muy laaj lan la bu dee dangaa am feebar tamit nga xam nooy def ba faju li nekk ci yow nooy def ba mu ba mu ba mu deñ loolu nag seet moo koy génne su paree nag après ñu wax la suñu d'accord ñu ñaanal la sarax yi nga war a génnee tamit nga génnee ko ñun tamit ku ñu war a ku ñu wax sarax rek eh, dañu lay wax defal juróom-ñaari maanaam juróom weer mooy six yu nekk wala at bu nekk danga war a génne yooyu noonu soo ko defee rek da gis njëriñ wante sàngatu nag sàngatu nit day sangatu bu dee ubbeeku dangaa war a sang bu baax a baax bu dee muslaay dangaa war a sang bu baax a baax suuru takk même suul sax ci la bokk loolu yëpp nag macha allah dañ ko xaw a sàggane wante macha allah suñu seetalee nit ki ba ñu xam lan mooy gàllankooram su booba incha allah ñu mën ko ñaanal ni mu waree incha allah kon loolu daal mooy mooy laaj nit ki turam tur yaayam ay allah su booba nag dañu ko wax nangam ngay joxe ñu seetal la mm-hmm. su booba incha allah di nga kontaan. Mm-hmm. macha allah am na solo sëñ bi buñ la seet euh, ne wàllum joxe garab mm-hmm. na wàllum ñaan tey buñ la ñaan tamit na ubbeeku est-ce que euh, sëñ Amadou Ba da ngay seetal nit ki pare jox ko loo xamante ne ay sangat lay waaw xam nga seet bi ngay seet mooy génne li nga war a defal nit ki moo koy génne ci wàllu ubbeeku ak ci wàllu muslaay seet bi moo koy génne man seet bi may seet def lay wax lii nga koy defal ubbeeku ci la mhm. muslaay bi ci la mhm. moo xam nag li ko dal lan la moo xam liggéey bu ñu war dindi ci moom la wala cat bu ñu war dindi ci moom la wala rab bu ñu war dindi ci moom la wala leen nag leen lu war dindi ci moom mhm. su booba nag seet bi rek moo koy génnee su booba nag eh, ñu defal la ubbeeku yu ñu la war a defal muslaay yu ñu la war a defal lépp loo xam ne war nañu la ko defal rek su boobaa ñu defal la ko waaw ubbeeku moom incha allah dinaa ci gën a ñëw am na yu ma fii dinaa ko gën a yaatal incha allah seet dañuy ñëw ci li nga xamante ni wàllum prison kuñ jàpp koo xam ne euh, ki ñu ki ki ki bañ dugg kaso. Mhm. waaw bañ a dugg am na benn ndomb boo xam ne dañ koy defar. Mhm. te suñu ko defaree ba nit ki takka ko. Mhm. maanaam su ko amee. ba mu ba ba mu xes ko maanaam takk. bu dee kaso moom incha allahu taala du ci du ci du ci dugg. kaso moom pare na ci. incha allahu taala yàlla dina ko musal mhm. ci dugg kaso mhm. loolu ndomba la mhm. eh, bu dee ki dugg ba pare nag kooku tamit am lu ñu koy defal su boobaa tamit bu doon tey ñu ngi añ dañuy wax ne mën ngeen ko xaar añ bu doon reer moon ngeen ko xaar reer loolu tamit am na benn sirru boo xam ne ci bant eh, jaak lañ koy bind jaak def na lañ koy wax eh, wolof bi moo des loolu moo tax maanaam fi ñu teg néew <laughs> ci bant boobu lañ koy bind benn tur yàlla la soo ko ci bindee nga jokkoo ko moom ki nekk ci prison bi ci mu tëdd ci ci biir noonu da ciy tëdd rek su ci tëdd rek incha allah day génn parce que néew moom dañu wax ne kenn du ko tëj ci kër génn rek génn rek génne rek yóbbu leen ko rek loolu moo tax moom tamit kenn du ko mën a tëj ci kaso bi il faut day génn rek kon loolu benn la ci te bari na nag na ay façon yoo xam ne dañ koy def ci wàllu euh, maanaam génne nit ki ci kaso bu dee ndoom bi nag incha allahu taala du ci dugg suñu ko doon wër fii yëpp yëpp yëpp moo xam nag lu mu def dafa luubal wala dafa sàcc wala def leen leen kooku nag dañ koy wax dégg nit ku sàcc wala jëlu alalu jàmbur dañ koy wax da ngaa war a fay nag wante bu dee tëj la moom duñu la mën a tëj waaw bu dee ku nekkee biir tamit incha allah dañu lay dimbali nga génn waaye nag tamit da ngaa da ngay fay da ngaa yoree bor da ngay fay waaw mu ngi noonu. am na solo bu jógee ci li nga xam mooy ci wàllum prison ko bañ a dugg kaso dañuy ñëw ci li nga xamante ne sëñ bi mooy wàllum fay wax. Mm. waaw daanaka dañu xaw a jege yoo ñoom ñaar xam nga fay wax tamit bari na ay façon am na ñoo xam ne dañ leen di tooñ ñu dugal leen ci ci ci mbir ñu tooñ leen ñu teg leen wax am na loo xam ne soo ko defee ku nekk ci wax wala ku tiit wax wax boobu soo ko suulee kenn da ko sulli ku ko sulli it soo su moytul moom mi ko sulli dañ koy suul waaw su moytul moom loolu da koy dal wala feebar feebar bu garaaw fay wax moom bari na loo xam ne dañ koy suul am na loo xam ne tamit du nekk sax suul am na yeneen façon yu bari bari yooy def mën nga boyal sa furna yu mel noonu yëpp nga fayee ko affaire yi nga woo ñi nga ñi nga bëgg woo te nga dangal dugal seen tur yi tamit si biir li ngay bind foofu ngay dugal seen maanaam tur ñi nga xam ne ñoom nga ragal léegi nga soo paree nag ñoom ngay saafar suuf suusu noonu moom ngay fayee furna bi loolu yëpp soo ko defee wax boobu noonu kenn dootu ko wax wax boo suul wala boo fay kenn dootu ko wax ku ko wax rek dina feebar wala ñu ñu suul ko mhm. waaye ndax nit dañ koy wax dégg mhm. bu dee dafa tooñ dañ ko ah, yaa tooñ bu dee dañu ko tooñ bismillah yonente bi nee na seen mbokk su too su tooñee mhm. ak suñ suñ ko tooñee yëpp dinañ ko dimbali wax ah ku ñu tooñ moom xam na ñu koy jàppale bu dee ki too ki nga xam ne moo tooñ na wax ah dañ ko wax yow yaa tooñ loolu ngeen koy wax loolu mooy ndimbal bi kon ku tooñ tamit dañ la wax yow yaa tooñ léegi dangay delluwaat gannaaw waaye nag mën nañu la ñaanal wante ci rek lañ koy teg incha allah. macha allah bu ñu jógee ci li nga xamante ni sëñ bi mooy fay wax day ñëw na ci li nga xamante mooy wàllum nopp tey boo doon wax tey nopp. waaw balaa may dugg ci nopp bi dinaa ñëw ci muslaay parce que wax ubbee rek loo ci kanam sax mu ngi ñëw xam naa dinaa ci gën naa ñëw ci sa question bi rek maanaam boole ay nit léegi moom dafa xew dafa bëri xale yu jigéen yu bëri jigéen du du xale rek am na ay mère sax ñu lay woo. ñu lay wax affaire diw euh, sama jëkkër wala dem ko bog nangam nangam ñu bari dal di ñu woote ci loolu bëgg loolu noonu am na yenn sirru yoo xam ne soo ko defee loolu incha allahu taala jàmm rek mooy am euh, mën naa ci junj benn sirru diñu ko wax munim azim munim azim nag dafa am lu muy jàpp euh, ñuy jàng lasraar xam nañu loolu sirru boobu soo ko defee nga jël turu ku góor ki ak ku jigéen ki nga dugal ko ci ci sirru boobu noonu su booba macha allah ñoom ñaar Euh, sikki amul dañuy jëflante sikki amu ci am olof da koy wax dañu laalante la koy wax xaw ma loolu moom du ñàkk parce que waaw il faut ñu kii il faut ñu sëy daal il faut ñu sëy parce que li nga dugal moo tax mu ne am jamil bi nga dugal ak azim bi nga dugal loolu moo tax deg waat day ànd ak wa alqaytu aleyka mahabbatan minni loolu li nga boole nag ak tur yooyu noonu loolu moo tax il faut ñu sëy ku nekkoon France ki nekk Sénégal wala nekk États-Unis ki nekk euh, Gambie il faut ñu daja ba sëy rek loolu nag macha lu lu lu yaatu la wante am na yeneen yoo xam ne ci ci yaa jaami yaa waduudi yeeg ak xawaatim yi ku jàng lasraari moom ba moom mu xaatim kooku moom affaire am jafewul soo bindee sa lettre ba pare rek dangay jël dugal aajo bi nga wirde nag mbir yi nag ruus la parce que soo taa affaire yi soo ko defaree ba pare dafa mel ni ku dem ci marché ba to maanaam nduggi ba pare ñëw teg xanaa doo nduggi ba pare ñëw teg rek affaire bi il faut nga jublu nga mën a teg ci ci ci cin li waaw waaw pour nga mën a togg mën a yàq añ wala reer affaire bi noonu la soo defaree xaatim ba pare eh, léegi defar nga affaire yi léegi nag lu des mooy yëngal ko mu yëngu pour mu pour mu pour mu dund mooy dafa mel ne oto bi rek mu ngi taxaw wante il faut nga dugal caabi taal ko mooy xaatim bi taxaw loolu na affaire bi nag loolu il faut nga wird il faut nga wirdal nit ki wante kula la fay nag moom ngay wirdal ku la fay an doo toog ngay mm-hmm. amoo yi jot boobu amoo ko mm-hmm. wante ku fay moom ngay wirdal su boobaa nag incha allahu taala mm-hmm. pour nga boole ñaar ñooñu yàlla dina ko yombal waaw yàlla dina ko yombal incha allah ci gàttal daal naa la junj loolu ah. am na lu ma jaaxal damay dégg des rek am nga nopp dañu bëri façon am nopp yoo xam ne dañu koy naan dañ koy lekk daal bëri na même ci pi kaso bi ñu passé woon léegi prison bi ñu passé woon léegi am na loo xam ne soo ko joxee nit ki mu lekk ko day génn du fanaan wala du fa yën wala ci wala ci demee taxaw ci tribunal ba après dañ koy bay léegi nag nopp tamit bari na façon nopp yooyu nag dañu xaw a doy war am na boo xam ne soo ko bindee nit ki 99 lañ koy bind nga dugal seen tur yi biir suñu ko naanee diggante bi macha allah xam nga mburu mburu soow lañ koy wax xawam waaw day neex macha allah bari na ay façon bari na ay façon yoo xam ne daal soo ko defalee nit ki macha allah dina sant yàlla bu baax a baax loolu moo tax ñu ngi ci jëflante ñu bari bari bari macha allah bi fii bee bitim réew te ku ñu jëflante rek incha allahu taala bu dee lu gën ci yow la yàlla dina ko def parce que sooy nit ki tamit dangay ñaan bu dee li gën na ci moom yàlla na ko yàlla def waaw loolu sëñ bi bu ñu jugee ci li nga xamante mooy noob dañoo ci li nga xamante mooy wàllu muslaay ndax kenn ku ci nekk ci li liggéey bëgg nga ci mm-hmm. ak muslaay nañu leen boole rek mu nekk benn léegi ubbeeku bi nag ñëpp bëgg nañu ko bëgg nañu ubbeeku parce que liggéey rek bëgg nga am euh, ndollal maanaam sa mbir yaatu nga ubbeeku daal ci li ngay def bu dee sëriñ bi bu dee journaliste bi bu dee keneen ak keneen bi mu ku mën doon rek sàmmkat bi sax bëgg na nag yi yokku wala béy yi yokku kon kenn ku ne li ngay liggéey rek maanaam dangaa bëgg affaire bi yaatu ubbeeku nag dafa bari ay façon bu dee ci wàllu alquran bari na lool yaatu na waaye dañuy junj rek bu dee sunguf tamit macha allah yaatu na lool xam nga pël moom mënul dem saa sunguf il faut sunguf bokk ci loolu moo tax na aaya aaya alquran boo gis am na garab aaya boo jël rek am na garab léegi na am na sirru bi ñuy wax isa isa sirru la am na sirru sirru bi ñuy wax chamsul bilaad am na bi ñuy wax maanaam sirru sirrul waaqia sirru suratul waaqia am na sirru suratu Taha am na sirru suratu najmi am na kursiyul kabir am na sirru dunia am na sirru yaasin sirru tiin maanaam wattiin be bennaas ak sirru alam nasra yooyu yëpp ci sirru yi la bokk lii nag fatuhu bu garaaw la mooy yaasin boo xam ne maanaam day ànd istigfaar day ànd ak astagfirullah am na maanaam soo jàngee benn laaya ci yaasin am na lim booy def ci astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah fekk da ngaa jàng benn laaya bi nga jël beneen laaya nga defa defaat istighfar bi ci lim boobu noonu bee laay jeex maanaam bee bee bee bi jeex loolu ubbeeku bu garaaw la li ciy génn nag soo koy def nga def ko par suba soo jullee suba ba pare ku ko mën a def da koy def da koy jàng mu koy def ku ko mënul def dañ ko dañ koy bindal waaw dañ koy bindal def ko saafara bu dee mën na ko jàng mu koy jàng soo ko ñu ngi ko ñu ngi ko koy jàngal loolu benn fatu la wante am na yaasin boo xam ne tamit bu dee ci wàllu muslaay da nga ci dugal laay bi ñoo ko wa raddallahu alladina kafaru ak wa in yakadu alladina kafaru wala nga dugal ci falaq ak naas waaw wala nga dugal ci maanaam eh, eh, ayatul kursi wala qad jaakum yooyu yëpp mu ngi jëm ci muslaay maanaam eh, am na juróomi saar yu nekk ci alquran tamit waan ci saar yu ndaw yi la saar bu nekk dañ koy bind sept fois soo ko bindee cette fois juróomi saar yooyu ngay boole loolu tamit bal lay doon ku la defoon lu bon euh, ku fu mu mën a nekk rek loolu dina doonaat bal ci moom day delluwaat ci moom loolu tamit mbir la wante am na beneen sirru boo xam sirru wadud la wadud tur yàlla la tur boo xam ne mu ngi dox ci wërsëg waaye mu ngi dox ci cofeel sirru bu garaaw la man bi mu ko moo commencé sangu yàgg na bi mu koy test noonu rek gisoon naa ci lu bari bari bari waaw gisoon naa ci lu bari loolu tamit sirru boo xam ne maanaam càngaay lay doon sangat boo xam ne sangat bu yaatu la ko am boobu tamit macha allah bu baax a baax ubbeeku nag fi may tëjee ci wàllu ubbeeku ñett la ñetti ubbeeku moo am alquran andi na ko alquran soo jàngee da ngay jàng ida jaa nasrullah ñu bëri jàng nañu dañuy jàng eh, nasru min allah fatun qarib dañuy jàng inna fatahan lak fatan mubinan léegi nag ñetti fatu yàlla la yàlla tudd fii nii maanaam ñetti ubbeeku fatu bu ndaw ak bu diggu doomu ak bu fatu bu mag bi soo waxee ne nasru min allah wa fatun qarib wa bashiril muminina mooy fatu bu ndaw bi fatu boobu nag tënkuwul fenn waaw am na ñoo xam ne tamit seen fatu boobu la dafa mel ne nit koo xam ne am na fatu maanaam am na ubbeeku boo xam ne mënul jëriñ keneen boppam rek na mën a la mën a jëriñ am na ci nit yi koo xam ne am na dara wante boppam rek lay jëriñ loolu fatu la parce que ci fatu boobu la toll am na beneen fatu inna fataana lak fatahan mubinan ba mu jeex ba mu yegga ci wa yansuraka allahu nasran azizan te fotu boo gis rek am na nasru waaw léegi nag euh, kooku tamit mooy ki nga xam dafa nekk ci diggu doom bi ci digg bi kooku mën na jëriñ boppam jëriñ ay mbokkam waaye du jëriñ keneen du leen du leen du leen jéggi ci ay ci mbokkam rek ak ci ay maanaam ci boppam ak ci ay mbokkam lay yem loolu tamit fatoo la maanaam ubbe benn ubbeeku la ubbeeku bu mag bi nag bi nga xam ne mooy moo motal te mu euh, lembe maanaam mu boole ñëpp mooy ida jaa nasrullahi wal fathu waaye mooy photo bu bu bu bu mag bi boobu na su ñëwee nit ki dina jëriñ boppam jëriñ ay mbokkam jëriñ ñëpp photo boobu nag mooy photo bu bu gën a foor bi photo boobu nag macha allah yàlla nañu yàlla may ñetti photo yi yëpp wante photo boobu tamit moom la ñu gën a maanaam bëgg su boobaa ñetti photo yi mokk maanaam ñu ñu mot ci nit ki wante nit macha allah euh, moo xam daal su suñu su bëggee ñu jëflante daal te mbir mi doon njëriñ su booba dina jëflante ku ñu ñaanal ku ñu ku ñu seetal ba pare nag ñu war ko ñaanal di ñu wax ne bu dee yàlla dina faj aajoom yan nañu yàlla def ñu ñu juboo ñu juboo ñu d'accord ci ay ay kaddu daal su boobaa ñu mën jëflant pour yàlla mën a faj aajoom kon loolu rek laa lay daal ci ci wàllu maanaam ubbeeku ak muslaay incha allah. macha allah xam-xam bi am na solo sëñ bi bu ñu jegee ci ubbeeku ak muslaay da ñëw ci li nga xamante ne mooy bayre ndax ku ci liggéey rek bëgg nga bayre bëgg nga boo tegee sa pasa jaay. jaral bëgg nga tey wax dëgg yaa ci lépp looy nekk rek nit ñi songu la ci ñu ñu wuy tey boo ñu koy wax tey Baye Rida. waaw daanaka dugg na foofu sax li ñu doon wax léegi daanaka dugg na fa sax wante bayre Rida dafa dafa am solo bu dee ci sëriñ bi bu dee commerçant bi ku mu doon rek même chauffeur bi nekk ci garage bi dafa baax ci moom. waaw parce que ñi koy jël yenn sax yi course de yóbbu ñu fii dugg fi genn fi soo moytul cak-cak yi ñoom tamit dañ koy soxla. waaw ku ko amul rasa moytu gars yi la ñuy ñu bàyyi la foofu noonu kon ku ne rek yitti woon nga ko jigéen boo xam ne amul bayre lool tamit ci wetu ndaal ba lay toog rek kuy ñaan ndox ñaan ko ndox kooku tamit da koo soxla lu am solo la léegi mooy mooy ci wàllu ubbeeku bi rek yooyu yëpp suñ koy defal nit ki dañ koy defaale rek mu nekk sangat boo xam ne day amaale lépp parce que bayre wërsëg la waaw bayre wërsëg la nit suñu la bëggee soppal rek mën nañu la jëriñ am na solo macha allah di leen fàttali rek ñu ngi fi nga xamante ni booy jam ñaajo ñu seet si koo xamante ni borom xam-xam la muy Serigne Amadou Ba Serigne Amadou Ba nag wax dëgg yàlla muy ñaankat moo xamante ne wax dëgg yàlla ñuy faral di wax rek boo ñëwee seet si ko sa aajo dina faju lépp loo bëgg boo xam ne liggéey la bu nekk sa yaram boo ñëwee ci moom ci kàttanu yàlla dina ko dindi ba mu set wecc ay ci sëñ bi bu ñu jógee ci loolu dañ ñëw ci li nga xam ne mooy jigéen bu toog lu yàgg abul jëkkër jigéen jànq boo xam dafa toog yàgg amul jëkkër tey boo ñu doon wax ko koo xamante ne dafa toog yàgg amul jëkkër mooy koo xam ne bëgg na jëkkër wala bëgg na loolu nag ba jarul nga koy wax jigéen yi kes <laughs> bari na ci góor ñi de ah, waaw ñu bari bari ñu ngi fii bëgg am na te amuñu soxna waaw ñoom jigéen yi ah, lamb nañu wante góor yi tamit lamb nañu de lamb nañu torop sax parce que góor ñu bari tamit dañuy yor ba yàgg seen na dem su booba tamit dañu am jafe-jafe ah man di sama soxna dafa dem dama boggoon daal mu ñëwaat nangam nangam pour nga dimbali ko daal nga woowaat woowaat soxna si ba mu ñëwaat loolu tamit ci dañ ci ñaan bu baax a baax léegi nag uh, ku bëgg a sëy maanaam am jëkkër jigéen wala ku bëgg am soxna léegi am na benn téere booy bind ku ne nag dafa am téere boo koy bindal te alquran lay doon waaw soo demee suratul baqara sar bi gën a gudd ci alquran foofu ngay fekk uh, laa yooyu noonu maanaam dañ koy bind uh, cinquante fois jigéen gi téere bi nga koy bindal cinquante fois nga koy bind nga jokkoo ko ku góor tamit cinquante fois nga koy bind wante boobu suratu Yusuf la nekk bi ma wax ni cinquante fois nga koy bind bu dee bi ngay bind nag sept fois moo nekk suratul baqara ku nga bindal ko ku góor ki am na laaya ku jigéen ki am na laaya ku ne nga bindal ko ko sept fois téere boobu balaa muy tilim incha allahu taala dina dina dégg alxeyri bu de ku jigéen la bu de ku góor tamit macha allah dina am soxna yàlla dina ko niital daal dina ko niital mbir yi ba mu mën a gis daal kii moo war nekk borom këram wala kii moo war nekk soxnam te loolu am solo jigéen yi macha allah lamb nañ fi wante góor ñi ñoo ëpp nag parce que dañu sonda dañu xool affaire yi est que jigéen ñi ñoo ëpp wala góor ñi ñoo bi ñu defee seen kii ba pare ñu wax ah góor ñi ñoo ëpp wante jigéen ñi macha allah yàlla bi muy wax ci alquran nangul wax sax jigéen ñu dañu bëri yàlla waxuloo ci alquran nee na rijalan kathiran nee na góor ñu bëri bëri bëri wa nisaan ak ay jigéen rek noppi moo doon wax ak jigéen yu bëri wante yàlla wako ko yàlla dafa leen suturaal te jigéen macha allah dañu foor dañu tedd yàlla tudde leen saar ci alquran saar lem góor ñi moom am mën nga wax yonent yàlla huud wala ibrahim am na saar wante saaru rijal góor ay góor déedéet amul ci alquran waan saaru jigéen am surat mariama am na yu mel noon yëpp macha allah teraanga la boo xam ne yàlla moo ko defal jigéen ko jigéen tamit dañu war a sëy te suñu sëy tamit toog loolu tamit jafe-jafe la ñu bëri dañu dem sëy wante dañu fa mën a toog dañu ñëwaat loolu tamit euh, jafe-jafe la waaw waaw waaw coow rek problème bi moo nekk ci ku góor ki moo nekk tamit ci ku jigéen ki waaw loolu moo tax nag euh, daanaka soo ko xoolee ci ñaari côté yëpp da koy gis doo mën a wax góor ñi doo mën wax jigéen yi parce que ñoom daal kenn yenn saa yi da ngay da koy gis ñi yenn saa gis ko ci ñeneen ñi ko ñoom ñëpp daal problème bi yenn saa yi ñoom ñoom lay nekk waaye nag suñu kii rek mën nañu leen jàppale dimbali leen ba lendemain bi nekk seen diggante wala cat boobu noonu wala seytaane boobu noonu mën ko dakk seen diggante incha allah mm-hmm. Mm-hmm. sëriñ bi dañuy des si li nga xamante mooy ci jigéen rek ndax ku ne wàllum sëy bëgg nga am doom ci sëy ndax dañu gis ñoo xam ne dañuy sëy 15 ans 20 ans mais du am doom ñu ci bëri naan ay rabal leen lu tax mu am doom dañoo jëm mag ak naan tey boo ñu doon wax tey ñi nga xam dañuy sëy te mënuñoo am doom moo xam naa ne am nga ci ay sax waaw xam nga sëy moom dafa mel ne contrat bi ñu def contrat la sëy contrat la dëgg na dafa mel dañ koy wax sax waaw contrat boobu nag dafa war a génne résultat waaw dafa war a génne résultat résultat sëy nag mooy doom mooy doom xam nga góor la wala du góor xaar leen ci ba kanam rek su demee ba ci kanam ah ñoom dañuy tëj su demee ba ci kanam dinañu ubbi suñu ubbee moon na am dina am lu ñu génne lu ñu génne nag mënu tudd doom wax ah macha allah ndeke moom góor la ndeke moom jigéen la waaw ñu jigéen ñu bëri nag dem leen yërëm du ñu mën a am du ñu dañuy sëy du ñu am doom ku ñu wax ne góor ku wax ne ah man de damay uti ñaareel parce que nangam nangam euh, kii du du def ko kii du am doom fekk ne ku ci jigéen ci góor ki la nekk jigéen bi sax demee muy faju ñu wax yow amoo benn problème góor ki war a dem faju nag moom du ci sawar dem takki ñaareel maanaam weer na boppam yàlla nattu ko nag indi ñaareel euh, macha allah du ci am doom du ci am doom maanaam du ci amul doom tamit su booba weer na boppam rek parce sutur bi mooy ki nga amoon rek nga yëm ci moom man gis naa ko am na ñu ko def macha allah bi ñu ko defee euh, fase soxna si indi keneen ba léegi amuñu doo xam nga yooyu yëpp tamit mbir la ku bëgg am doom nag wala koo am day avorté biir am day ëmbal biir bii di yàqu kooku am na téere boo koy bindal 61 euh, fois nga koy bind sirru boobu noo soo ko bindee téere la koy def su boobu su ko takkee biir bu doon tuur wala wala di yàqu wala affaire seytaan yooyu yëpp incha allah seytaan da koy def cat da def yëpp su booba yàlla dina ko ki defal euh, sutura ba biir boobu du tuuru. Mm. incha allahu taala. ba tey sëñ bi ñu ñu nekkaat ci li nga xamante mooy entre góor ak jigéen ndax uh, am na góor ñoo xam ne dañuy takk jabar nekk ak seen jabar ay 10 ans mais dañuy dañuy tële. duñ mën a am doom des fois nag ñuy faral di wax naan uh, ku jigéen ki la wala ku góor ki la des fois dañu gis uh, fukki góor yoo jël maanaam dañuy gis say set yoo xamante ñuy néew kàttan. waaw loolu de ci sëy la bokk moom sëy loolu mooy sëy mm-hmm. loolu mooy sëy am nga nit soo ko jëlee kër kër baayam ak kër yaayam lépp nga indi ko sa kër lépp lu mu doon def foofu mu koy def fii fóot bi mu doon def léegi yow lay fóotal wala sa yaay wala sa pap euh, togg bi mu doon togg foofu tamit fii la koy toggee lépp lu mu doon bale bi mu doon bale foofu fii la koy defee léegi nag jigéen boobu nag du loolu kese moo ko indi ci kër gi bu doon fóot kese la wala root kese la wala yu mel noonu kese kese kese fa lay toog kër papam lay toog waaye am na loo xam ne yow rek yaa ko mën a defal loolu nag ci dépense yi la bokk mhm. na dépense zahir am dépense baatin dépense zahir bi nag mooy soo yekkee rek da ngay teg bool bi ñëpp ñoo ci yem xale yeeg surga yeeg ñëpp ci biir bu dee dépense baatin nag loolu moom sirru la parce que loolu tëj na buntu wàccee na rida fay na lam mhm. sirru boobu nag ah ma dépense boobu nag ku góor ki da koy soxla mhm. ku jigéen ki de koy soxla waa nag macha allah bu dee góor gi tamit mu ngi noonu mënu ci dara a ah, na faju muñal ko tuuti ku jigéen ki muñal ko mu faju mm-hmm. fii ak at su fajo wérul mm-hmm. a ah, su amee ngor mm-hmm. naka libéré wax ah yoon de macha allah nga baxal ma ak eh, ñaanal la nga am keneen ku gën loolu moo ëpp sutura wala jigéen boo xam ne dafa am jafe dool parce que loolu du góor kese day am jafe-jafe boobu day am ci jigéen jigéen boo xam tamit affaire pour mu sëy day jafe parce que yàlla def ko teg nattu ku góor ki naka muñal su mënee faju mu faju su demee nag mënul sotti nag après ñu ñaanalante mu dem yoonam moom tamit yàlla nee na su ngeen di ànd na doon njëkk teraanga su ngeen di taxali tamit na doon njëkk teraanga loolu moo tax na macha allah loolu tamit eh, am na loo xam soo ko defee eh, kattan ci wàllu góor ci wàllu sëy macha allah danga koy am am na ñoo xam ne eh, satta dañu toog du ñu mën ci seen soxna dara am na loo xam soo ko bindee wante ginaar nga koy toggee mooy sëx bu xonk nga koy toggee moom rek moo koy lekk nag keneen du ci lekk. waaw su la ba pare macha bu doon seet la toogoon mënul si soxnam dara sax su boobaa dina dina kii am na ñoo xam ne dañuy feebar rek maana dañuy xaw a euh, ñàkk euh, kattan rek loolu moom nekkul kii ñoom am na loo leen jox suñu ko kiyee rek macha allah dañu amaat kattan am na sirru boo xam ne sax soo koy naan ci feer ngay toog ci kaw weñ ngay toog su booba nag weñ moom dafa dëgër waaw dafa dëgër soo affaire waaw waaw kon loolu moo tax loolu tax sërru bu yaatu la macha allahu taala liñ ci yore daal bari na ñu bari tamit dañ koy yitt wala dañ koy soxla am na beneen garab boo xam ne ci ci ci karité nga koy def ko da koy diwoo rek ci wàllu maanaam ndiggam comme kuy foreetu koy def foroot rek noonu la koy defee su booba tamit macha allah kattan bu kii tamit ba am solo kon mu ngi noonu Mm-hmm. ayca am na solo macha allah di leen fàttali fàttaliwaat rek ñu ngi fi nga xamante ne mooy jam ñaajo seet si Serigne Amadou Ba di borom xam-xam di ñaankat wax dëgg yàlla nee naa la boo ñëwee mu seetal la muslaay gi muslaay yëpp boo ñëwee dala koy defal ay bayre ku bëgg jëkkër ndax boo xoolee jigéen ñi bëgg nañu sëy mais waxaale bi moo jafe ñëwee ci moom rek ci kàttanu yàlla lépp lu mu ci mën dina ko def ndax euh, ñaankat la bu mag boo xamante ni wax dëgg yàlla képp ku ñëw ci moom rek lépp loo xam ne bëgg nga ko rek moo xam ñu liggéey la liggéey bu nekk sa yaram yëpp boo dikkee ci dina ko di mais bu ñu jógee ci loolu dañoo ci li nga xam ne dañu gis ñoo xam ne dañu nekk ci place bëgguñu faa jóge mais dañu gis ñoo xam ne dañu nekk ci place bëgguñu faa mais leen liggéey que seen place duñu fa toog. Mm-hmm. Mm-hmm. ah ñu bari nag dañu luyee fen mm-hmm. moo xam kër lañu luye wala leneen lañu luyee. boroom soxla. ñu war faa jóge ñu wax duñu fa jóge loolu tamit erreur bu rëy la. boroom su soxlaa rek. Uh, su booba tamit uh, lu mu métti métti. da nga war a sabablu nga ut feneen. wante am na ñoo xam ne tamit day leen di tooñ pour bogg leen génnee rek comme man ak yow yow yaa ngi jaay fi maa ngi jaay fii léegi place sama place mu ngi dox mën am sa bos doxul noonu wala ñaar yëpp ñu ngi dox sax wax di nga bëgg a jël ñaar yi nga fexe ba mu génn ci sama place nga jël ñaar yi loolu tamit day am comme cas yooyu maanaam zaar boobu noonu la ñuy ñaanal nit ki bëgg faa jógee su boobaa tamit incha allah ke du fa jógee wala ku nekk ci aéroport bi dafa dafa liggéeyee sax bëgg fa yàgg mu fay liggéeye incha allah am na loo xam soo ko joxee su ko sànnee ci biir aéroport bi affaire boobu fii fii ak mu ngi ci aéroport bi rek wala ci usine bi wala fenn ak fenn ci place boobu noonu su boobaa incha allah du fa jóge loolu tamit sirru la boo xam sirru bu foofu moom macha allah fii sirru bi mu foofu kenn du ko mën a génnee ci place boobu noonu incha allah. am na solo sëñ bi bu ñu jógee ci loolu dañuy ñëw ci li nga mooy ah, kiis ah, ndoxu siti émorite ak saan. tey yooyu yëpp nag bu ñu ko boolee xam naa ci ma wax dëgg yàlla jàmbaar nga ci tey doon boo ñu doon uh, wax li nga xamante mooy ay kiis émorite ak ndoxu siti ak saam waaw kiis tamit dafa am solo dafa am solo parce que ku ne uh, xel maanaam dangaa soxla uh, xel xel bu neex xel xel boo xam ne macha allah kuy liggéey sax lu mu mën a doon yaa xam ci ordinateur ngay liggéey yaa xam ci télé nga nekk yaa xam ci foo mën a nekk sëriñ beeg kuy jàngale nit fu mu mën a nekk rek xel mi moom daa war a ñaw daa war a baax euh, rawatina xale yi nga xam dañuy jàng kiis loolu moo tax mu am solo am na sirru yu bari secret yu bari yoo xam ne soo ko bindee nit ki mu koy jëfandikoo mu koy naan def ci lim ci war a def su boobaa dina nekk xéewal bu rëy ci moom wante am na benn boo xam ne foofu def li muy laaj dafa bari kula la joxul jaam zamana boobu noonu xam ci jaam bareetul essayé ne wante ku la fayul jaam wala fay fas naaru góor wala fay la 500000 doo ko ko loolu ci sirru yi la bokk wante am na yeneen sirru yoo xam ne kiis la macha allah sirru yu am solo la ku ko ma ñu ngi ki defal ñu bari bari ku ko soxla tamit ku ko yittewoo macha allah moom am na fii mhm. bu dee ci euh, siti nag ak émor yu mel noonu boobu tam am nañu garab yi waaw ñu ngi faj ñu bari nit fu mu mën rek bu dee fii bu dee euh, bitim réew mën na toppatoo garab yi ñu ñu yónnee la ko nga jot ko soo paree ñu wax la ni nga koy utiliser bu dee maanaam euh, jabet tamit noonu la saan noonu la beneen bi nag mooy gàllaaju kër waaw euh, kër yu bari ñu bari am nañu ay kër wante kër yi macha allah nit ku bon mën na fa dugg dugal fa lu bon wala seytaane bu bon jinne bu bon dugg fa loolu yëpp soo ko bañee am na looy bind soo ko bindee ci buntu kër gi euh, nga koy def wala ci buntu néeg bi soo ko defee su booba nit kuy yàq wala seytaane buy yàq du fa dugg waaw sër loolu boo xam ne dañ koy bind loolu tamit xam naa ne am na solo parce que léegi seytaan yi ak ñuy yàq dañu bari waaw bu dee tamit wallu sàcc am na loo xam ne soo ko defee ci sa maanaam euh, place wala nga def ci sa kër walla nga def ko ci sa say xar wala say béy yaa xam loo wala sa oto kenn mënu koo sàcc kenn kenn du ci mën dara loolu moom yàlla moo koy def am na loo xam soo ko bindee sax suul ko foofu noonu ci place bi sa gétt wala ci sa euh, wetu place yaa xam wala sa kër ku doon ñëw bur sàcc sax su ñëwee be jub foofu rek yàlla day wëlbati xelam mu delluwaat su man sarafu sarafu la gula boobu waaw alquran wax na lool waaw dañu bëri loolu tamit macha allah euh, lu am solo la beneen bi nag euh, am na ñoo xam tamit dañuy bañ omb xale yu jigéen yu bëri tamit dañuy bañ a omb am na loo xam soo ko bindee sirru la mu def ko téere su booba du omb Euh, fekk sax deful leen leen palaa palaanik yeeg yu mel noonu yëpp fekk defu ko waaye soo ko defee rek wala jigéen boo xam day nef waaw su ko bindee def ko téere takkaw su booba tamit du du du du ëmb fii ak mu ngi takk téere boobu noonu def naa loolu tamit am na solo beneen bi ñoom am na ñoo xam dañuy wax ci ñoom rek dañuy wax ci ñoom wax ci ñoom làmmiñ yi topp leen am na loo xam soo ko defalee nit ki luy làmmiñ wala lor boo xam day jóge ci làmmiñ dafa mel ni dañ koy yeew yeew làmmiñ lañ koy wax waaw ak du lisaan loolu lañ koy wax su booba nag lamiñ dootul moom ci moom dara moo xam lamiñ bu góor la lamiñ bu jigéen xam nga loolu mooy cat wala bot bot am na loo xam ne naaqaatul ayna lañ koy wax loo xam ne loxi bot lañ koy wax sirru la loo xam ne soo ko sàngoo ku la xool bot bu bon su booba macha allah soo moytul moom du ko fekkee waaw beneen bi nag euh, mooy takk waaw takk xam naa ci nga jëmoon sax góor ñu bari def leen di dal même jigéen sax da koy dal xam nga ni ñu koy takkee ci góor noonu koy takkee ci jigéen waaw waaw góor du moon ci moom dara du moon ci moom dara day mujj tëju sax du moon ci moom waaw day am góor tamit noonu la man de su ma demee sama soxna see macha allah dama yegg ma ñëwee kii moom dama mën dara mën na am sax soxna see moo ko def mën na am wala sax keneen def ko en tout cas góor boo xam ne loolu dal na ko am na looy bind sir sirrol ci alquran waaw soo ko bindee ba pare nag macha allah am na lu muy ko boo su ko sàngoo lépp lu nekkoon ci moom xam nga liggéey la rek lépp lu nekkoon ci moom liggéey boobu noonu yàlla dina ko dindi bu dee tamit su dina yàlla dina ko dindi dina am li mu soxla incha allah lool ma bari na nja ñi ko ñi ko ñi koy jàmbat tamit bari nañu waaw bari nañu lool kon loolu tamit macha allah ñu ci sërru yi la bokk incha allah taala. Mm-hmm. liggéey jàpp na. <coughs> waaw mooy toj liggéey. waaw rek comme ci muslaa yi dugg foofu noonu. waaw toj liggéey maanaam euh, toj liggéey dindi liggéey mu ngi ci muslaa yi parce que wax naa la lu mën a doon gàllankoor nit ki moo xam rab la moo xam seytaane la moo xam liggéey moo xam cat la duggun foofu noonu lépp loo xam ne war nga ko ko defar rek su booba di ko ko defar parce que ñu bari léegi macha allah dañu leen yàq sànni korte yooyu yëpp juróom saar yi ma la waxoon fee léegi ku ñu sànni sa sax su ko sàngoo loolu ban lay ban lay doonaat ci ki ko defoon day delluwaat ci moom ah, macha allah macha allah am na solo ñu ngi koy jaajëfal bu baax a baax sëriñ Amadou Ba nekk fi nga xamante ne nii mooy jam ñaajo nee naa la boo ñëwee mu seetal la jox la ay kaaraange boo ñëwee ci wàllum nopp macha allah mën na ko lool ubbeeku muslaay bayre ak uh, ku bëgg jëkkër suñu compagnie gi nga xam ne des fois dañuy toog lu yàgg bëgg a sëy wala bëgg jëkkër te amuñu ko des fois sax ñu xas leen na leen da ngeen a lamb yooyu mais bu ngeen dikkee ci sëriñ Amadou Ba rek incha allah ci kàttanu yàlla. loolu lépp bëgg ñëw dina leen ko defal néew kàttan tamit aussi macha allah mën na ci lu baree baree bari ku bëgg toog ci place bu ñëwee ci kàttan yàlla moom dina ko dina la ko defaral kis ak émorite ak euh, saan ak ndoxu siti bi nga xam ne naa la mooy ndeyu feebar yi jàngoro la boo xamante ni ñëpp ko am mais am na ñoo xam ne seen bos day génn def ay gamb ci yaram bi boo dikkee ci sëriñ Amadou Ba ci kàttanu yàlla boo dikkee dina la ko fajal ba mu wér nga delluwaat say activité gàllaaju kër aussi ku ne bëgg nga ko ndax ku nekk ci kër rek bëgg nga sa kër am gàllaaj moo xam liggéey bu ñu fay suul wala yëf yu ñu fay def ndax am na ñoo xam ne mën nañ la soxare sax ñëw bëgg a tas sa kër jël ay gàllaaj sotti ca ñu suul ko boo dikkee ci sëriñ Amadou Ba ci kàttanu yàlla lépp dina la ko defaral macha allah sàcc tamit boo xam ne sa place bëggoo ñu sàcc ko ndax kenn ku ci nekk tamit boo defaree sa place ba mu baax di ci jaay ay bagage bëggoo kenn jël ko ci kàttu yàlla boo ñëwee ci moom rek dina la ko dindil macha allah kuñ takk tamit xala ndax dañuy gis des fois am na ñoo xam ne dañ leen di may jabar rek ñu dem ñu dem takk ñaareel ba xala su ko defee affaire bi day xaw a daal di metti boo ñëwee ci sëriñ Amadou Ba ci kàttu yàlla boo dikkee dina dindil li nga xamante ne mooy xala macha allah ñu ngi koy jaajëfal di ko kontaane waaye sëñ bi euh, duñu dem ba ñibbi te laaju na ci li nga xamante mooy làmb suba ji ndax ku ne xam ne ni suba euh, am na combat bu mag dox ci diggante Eumeu seen ak Sa Thiès boobu tey boo ñu ko doon wax waaw maa ngi ju maa ngi nuyu président de la république mooy Diomaye Diakhar Faye mm-hmm. mooy suñu président waaye suñu jaam la tamit séeréer la mm-hmm. ak moom ak euh, premier ministre Ousmane Sonko di leen nuyu di nuyu waa gouvernement bi yëpp mm-hmm. di leen ñaanal nag yàlla moo leen fol yàlla mooy jox nguur ki mu soob jëlee ko ci ki mu soob yàlla jox na leen kon nañu gën a góorgóorlu yaakaar bu rëy moo leen fol nit yi dañu bay lépp lu ñu jàppoon am seen lider sax ñu war ko votel ñu bay ko foofu noonu dem votel li ngir li ñu teg kon yaakaar boobu noonu ñu gën ko maanaam fonk gën ko yëkkati ngir euh, maanaam li nit yi yéene bi ñu am ci ñoom am na lu yàlla def ci ñoom nag am na leer bu nekk ci ñoom te am nañu yaakaar ci ñoom tamit bu baax a baax loolu moo tax na ñu ngi leen di ñaanal di leen euh, wax macha allah yàlla na yàlla def tawfiq lépp yaakaar boo xam nit yi am na ko ci ñoom ñu mën koo def bu dee ñi war a bëree suba nag ki ñu wax Ama seen na gën a dolli ay ñaanam ay muslaayam parce que li ka li nekk ci moom dafa bëri dañ ko xaw a ya ya maanaam yàq li ñuy wax yàq wala yàqal ko daal ay mbiram waaw men na garab bu ñu xaw a ñu mu dañ ko xaw a buddi tuuti même ñu ko buddiwul ba mu kii sax dañu ko xaw buddi tuuti moom ak ki ñu wax bombar bombardier ñaari ñoor dañu seen mbir dafa xaw a ki leen topp nag mooy Balla Gaye loolu moo tax na ñoom seen mbir dafa xaw a difficile instant il faut ñu góorgóorlu bu baax a baax ci wàllu ñaan ñu ñu ngi koy def nag waaye nag gën a def effort ci wàllu ñaan gën a def ci wan ci wàllu euh, mm-hmm. euh, sarax mm-hmm. loolu tamit il faut def ko mm-hmm. parce que boo yi ma gis ne suñu deful loolu euh, combat bu ñu am tamit waaw waaw ba su ma déggee Sa Thiès moo ëppagul ñaan am ma seen pour l'instant nii waaw moo gën a taxaw moo gën a taxaw moo gën a taxaw. ci wàllu ñaan ñaan waaye nag su góor góorloo nag. Mhm. li nekkee ci moom. Mhm. am na cat boo xam ne sax dafa xaw a jàpp ci tànk. ci tànk moom yàq bu ko jàpp ci tànk defe naa am na ñu koy ñu ko gën a ñu ko seetlu sax ci moom mm-hmm. loolu nag su góorgóorloo bi affaire boobu wàññeeku ci moom wala mu denc moom rek mm-hmm. su booba dina amaat dara mm-hmm. wan fi ak affaire boobu mu ngi ci moom pour mu amaat dara day métti waaw waxuma nag ma loolu daan kii waxuma loolu de waxuma waaye nag di lekk ci moom dafa bëri waaw di ko jàpp dafa bëri dafa bëri cat na dafoo xaw a dafoo jiitu waaw mm-hmm. loolu moo tax na yàlla rek moo ko def moo ne dafa sutura dëgg dëgg dëgg dëgg mm-hmm. saas dëgg mm-hmm. moo mu gàññe kii nii wa illaa moom dañu koy gàññe waaw nag yàlla baax na na dolli ñaan am na loo xam ne nag doo ko wax waaw léegi nag ñoom ñëpp la ñu ñaanal formo ci kenn ñoom ne am ma seen ma sama borom dem na ba ci kiram waaw dem na ba foofu loolu moo tax nag kon bëgg naa ko bañuma ko. keneen ki tamit noonu la. ñu ngi leen saa ah. ñu ngi leen ñaanal ñoom yëpp. mais dolli bi daal. na ko dolli bu baax bu baax poids bi am na de. poids bi baax na wante am lu nekk ci biir. waaw uh-huh. ah, baatin bi am la fa ne. Uh-huh. loolu nag soo ko dindiwul rek. Uh-huh. pour muy am ndam day jafe. waaw ah, incha allah. kon yal nañu yàlla defal tawfiq. defal ñu tey si. yal yàlla faj aaj yi. seen télé bi tamit yàlla yëkkati ko ci kaw. ñëpp euh, jublu ci. pour gàpp tamit. ñu ciy def waxtaan macha allah kontaan nañu seen ñëw bi fii. wa axiru daawaana alhamdulilah rabbil alamin asalaamaaleykum. macha allah jërëjëf kontaan nañ ci moom bu baax a baax. Euh, Serigne Amadou Ba tey ñu seet woon ko fi nga xamante ne mooy jamono muy borom xam-xam bi jàmbaar loolu ci wàllum seet boo xoolee seet wax dëgg yàlla jàmbaar yi dalay seetal ba pare jox la ay muslaay ndax buy seet ku nekk bëgg nga li nekk ca yaram boo bëggee mu dañ. mu denc ndax dalay jox ay garab jox la ay muslaay nee naa la wàllum nopp boo ñëwee ci moom macha allah jàmbaar la ci ubbeeku ak muslaay bayre ak mm. ku bëgg sëy ku bëgg jëkkër ak képp koo xamante ne liggéey jàpp na la rek néew kàttan place boo xam ne ba nekk la te bëggoo jóge fa tamit boo ñëwee ci moom doo ko si téye ah gis ah lépp loo xam ne jàngale Kajoor am na si yow rek boo déggee ci moom dina ko dindi ñu ngi koy jaajëfal bu baax a baax sëriñ Amadou Ba di ko kontaane di ko wax jërëjëf kontaane yàlla na xam-xam bi yokk mm-hmm. euh, suñu borom bàyyi la fi nga gën a yokk ñi nga xamante ni macha allah ndax ñu mel ni dañ leen bëgg ñuy gën a des askanu Sénégal ndax buñu fi nekkee rek jàngoro yu bëree bëri ci doomu aadama yi yow dañ koy faral di saafara macha allah kontaan na jërëjëf yàlla yàlla yokk xam-xam. dafa la jàmm dafa la sutura kàttanal la wéral may la may la ah, lu baree bari loo xam ne tey wax dëgg yàlla xam-xam day gën kontaan ci ñëpp. nee naa moo ko macha allah jërëjëf kontaan na ñoo nekkoon ci caméra bi saa su nekk rek ayaa ngay ciy àndal mu ne ci micro bi ñu ngi jaajëfal ñëpp di kontaan ci ñëpp di wax ba beneen yoon ci beneen émission comme ni ñu la toppalee borom xam-xam yi jërë ngeen jëf